Euh, Barcelone mu bàyyi benn piste boo xam ne amalu ko njariñ Real Madrid Milan ancien match ci biir match yi devine ki ngeen gis ci li nga xam ne mooy image yi Michael Fay ak Barcelone wàcc nañ fële ca Miami wala boog ci Washington DC Nicolas Jackson Jackison moom moomee tamit ak Chelsea commencé na match bu njëkk gars yi def leen seeni abonnement ndax abonnement boobee mooy tax maanaam boo xëyee ni coow ci YouTube bi ma caba xalal la benn information boo xam ne moom ngay ndékkee kon gars yi bu ko caaxaane benn yoon Mikayil Faye d'origine sénégalais ngeen gis ko noonu nekk sunu fierté nag ca équipe bee di Barcelone catalan yi nga xam ne ànd na nag moom dem fële ca Washington DC àgg nan fa catalan yooye nag duñu génn ci ñoom ndax sawo Félix mi di footballkat boo xam ni Portugal euh, ñu ngi jégalu euh, di football fële nga xam ne euh, moo nekk Atlético wala Atlético moom ko moom moomee di gone boo amul chance ak demam Barcelone day toog xaar maanaam day muñ ba déwén ndax équipe bii di Barcelone daanaka priorité saf yi maanaam saf yi tànn ko mu nekk ki nga xam ni moom la gën a soxla loole nag ñu ngi ko sukkandiku ci ñi nga xam ne mooy Diario Sport vingt 24 di journal boo xam ni wala télévision boo xam ni bu am solo la teyit am doole fekk na booba doole duxul jàmm ci diggante Real Madrid bii di gars yi waaj ak lu Inter de Milan wala Milan AC bi ànd ak euh, Juri euh, Olivier Giroud match boobee vingt 24 septième mois lay am deux heures di matin day fekk xale yëpp tëdd daanaka kon match boobee dana am solo bu baax a baax ñi ko mënuta seetaan nanu ko kar avant match bi ci Aladji Malick TV vers bu asamaan setee ca suba sa bu àndeek dogalu borom bi ñu dabbar ñi leen victoire ba ak la nga xam ni euh, moom la euh, Milan gagné wala Real Madrid gañe ko ndax ñoom ñaar kenn ku mu ci man di doon euh, man ngaa fët sa morom fët na Chelsea moom mii di Jackson Jackson Nicolas football na ci match boo xam ni daanaka dugul ab bit waaye passe décisive ba nga xam ne roof na ko ab galgal passe décisive boobee saf na gaañi a neex na gaa ñi tey Chelsea xam na ni kon jënd na footballkat boo xam ne daanaka daa xëy ñëw def ndéegoom lu baax maanaam suba gi cuuy mu def ab passe décisive loole dana dëgëral taxawaayam fële ca équipe bi nga xam ni ñoom ay moyens yu bula la ni sol di Chelsea di ancien équipe bu Edou men di donte doxal na fa bu baax a baax ak Kalidou Koulibaly ñoom ñaar ñi nga xam ni jaar nañ foofee nga xam ni mooy Chelsea kon Jackson Jackson ñu ñaanal ko jàmm ak ñaanal ko tawfeex yoo xam ni équipe bee mu commencé moom mii di gone ak ancien Casa gi mu doxal fa loo xam ne ngéwal lay doon nekk mbégte ci man nekk mbégte ci yéen